ci ndigalul sunu kilifa sëriñ Maxuja Touré moom tamit mu ñëw fii ci teewaayu ci kilifaam sëñ Malick ture mooy sunub xalifa di siyaare bu baax tamit sëñ Abdou Touré mi nga xamante ni bi moo fi nekk di suñ mag te suñ borom dogal mu daan toog fi jotaay bi tey yàlla dogal aw moom sutante ñuy ñaan yàlla suñu borom defal ko ak wér wax ji nag man du gudd wax ji kàddu gi kàddu yi sant rek la ci lii nga xam ne moom la ñu yàlla suñu borom defal muy ñu teewaan fi daaw teewaat fi di ñaan yàlla yàgg fee teew di sant bu baax euh, sëñ Abdou Touré moom ma tudd léegi nga xam moom laa bokkal nekk fii muy suñ kilifa ak El Hadj Touré mi nga xamante mooy suñ mag ba nekk chef de village ak daam suñ rak ak mboolem waa dëkk bi Serigne Ndiaye ñoom ñoom jaxate aan ak waa dëkk bi ak jotu seen jobe joob ñoom soxna Ndeye Touré Fatou Touré ñoom dëkk bi yëpp ñu ngi leen di sant ñëpp amee leen ak cant ndaxte ñoom bu ñu fi ñëwoon te seen taxawaay manqué kon bu ngeen ñëwee bu ñëwee ñoom ak jaaxal rek lay jur waaye ñoom biñ nekkee Touba di waaj di ñëw dañoo xam ne buñ ñëwee danañ si fekk ay nit ñoo xamante ne bii dañ leen a bokkoo def leen seen bopp matal lépp kon ci suñu ci kàddu suñu kilifa euh, ñu ngi liñ war na jiital mooy sant Serigne Moustapha Touré ba tey mi nga xamante ne bii ba tey mooy kilifa ak ñooñu waaye nag bu ma waxee sëñ Makhoudia Touré wax sëñ Malick rek yóbbaale na Baye Moustapha ndax ñooñu ma tudd sëñ Moustapha Touré mooy seen kilifa ak mbooleem nag kilifa yi nga xam dañoo nekk ci yeneen dëkk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci euh, kàddu gi may wax nag maa ngi koy wax ci ndigalul sëñ Makhoudia Touré kon euh, ñi ngi sant ñëpp waa dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen yitte ci seen mbokkoo ci def ngeen def bés bi muy seen bés kon nag lépp loo xamante ne bii maanaam def ngeen ko fi ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla sama borom mi nga xam ne moo man sama defal ñu ko di sant tamit suñ mbokk yi nga xamante ne bii ñum ñoom lañ bokkal groupe Mame Mokhtar Omané ndax groupe bi man ñi ko sos ci laa bokk kon ñoom tamit bu ñëwee taxawaay taxawaay taxawaay bu mel nii maam ñi ngi leen sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla lépp loo xamante ne bii lu ñu yéene ci dëkk bi la yàlla ko sama borom def te yàlla sama borom mi nga xam moom man yàlla sama borom boole xol yi ba ñëpp de nekk benn ndax xam naa ne lépp euh, bëgg-bëgg yi lépp moom benn rek la mooy bëgg lu baax rek kon nag yàlla nañu yàlla jàppale defal ñu tawféex ak taysiir bi jaay nabi naa Muhammad ni sallallahu alayhi wasallam barke borom Tuubaa baax na jërëjëf. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jéglu kàddu yi ñuy yëkkati te tuuti ci lool xam naa kàddu yi tiraanga la kàddu yi sargal la waaye bu ñu wax ni bu ñu joxee kàddu ñu war a wax ci ñi nga xam ni dañoo sëti ci Mokhtar Omané te santuñu ture day mel ni kàddu gu diis la ndax loolu boo ci doon lim amaana sax mën naa ëpp ñu fi teew ndax boo tuddoon si da cay bokk nga tudd sëñ Fallum sëriñ Soy bu sëñ Abdou Samad da cay bokk tudd kilifa yu baree bari yoo xam ne dañuy tudd tudd Maxtaar Omaane te santuñu Touré loolu nag day mel ni ñi sëtu ci Touré yi ci kàddu gi ñu yëkkati nii joxe ko ab junj boo xam ni ñi nga xam ne dañuy dox ci askan war nañ ko bàyyi xel ndax arab yi dañuy wax ni wara kulli rajul azim imraatun azima foo fekk jàmbaar soxna su jàmbaar ma ngi ci wetam te loolu lu neex a dégtal waa Sénégal la ndax suñ tuddee Serigne Touba daal di tudd Soxna Jaara kilifa ñu tudd rek tudd ko neen ba di kii ñu fit dajale sax bu ñuy wax bu ñuy bu ñu waxee Moxtaar dañuy wax umaane kon ñu xam ni bu ñu waxtaan ci wàllu famille nañu xam ne saa ñu waxtaan ci famille ko am doom ju góor am nga doom ju jigéen ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te bu ñu waxtaan ci mbokk dëgg dëgg dëgg wala deret yaay la yaakaar naa ay ji ay ay géwal su fekkee teewoon nañ fii wala ñu delluwaatan ci cosaan ak mbokk dëgg-dëgg buñ koy wax meen lay doon ci wàllu jikko ci meen lay xew nit ko fa nga koy xamee dëgg-dëgg mooy da ngay xam ndeyam kon nag xëy na lislaam ak aari lislaam yi nga xam ne daal di jaxasoo ak Sénégal moo tax ñu notal góor ba léeg-léeg sax ñu fàtte suñu jigéen ñi kon loolu ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax di rafetlu kàddu gi nga xam ne jox nañu ko ci turu ñi nga xam ne dañoo sutu ci Moxtaar Omaane te santuñu yaakaar naa su ma ko waxee rek dana gën a leer ñu sëtu ci moxtaar omaan te sanduñu tëralaal ci seen kàddu la ñuy waxee te ñëw ci te tuuti ci lool waaye nag ñi ngi rafetlu doxinu am solo yi du wax di rafetlu jéego yu am solo yi nga xam ni kilifa yi yëkkati nañ ko di ko doxal ba dajale mbooloo mi ba delluwaat ci dikk cosaan yi ba démb ñu demoon càqami muy cosaanu bi jiitu te ñu nekk fii ci lappe muy cosaan bi ci topp ak bu ñu tege xeer wi nii woo ñëpp ci képp ku sëtu ci maxtaar loolu lu amaam solo la boo defee nag comme ni ma ko waxee léegi daa bokk suñuy aada ñun waa Sénégal sant sanc ab dëkk santale ko saw sant aada nag waaye du diine sanc ab dëkk santale ko sant moom aada la ko xam bu baax a baax sanc ab dëkk santale ko sant ab aada la Sëriñ Tuubaa mii suñu roykaay nag sanc na ab dëkk ndax nan la ko santalaat santale nañ ko xoolaat Daarul Muxti ab dëkk la ci ndigal nañ ko sant Tuubaa ab dëkk la ci ndigal nañ ko sant boo jàngee ca ma Matlabul Fawzayni da nga fa jàng Touba al-Mahrousa wala nga jàng fa Touba xarasahallah sëriñ Touba moom ko dañ la ku set wicc la ci aada ñun tamit war góor góorlu ci jéem a set ci aada suñ mbokk soxna yi nag ci ñun suñuy aada ñun waa Sénégal soxna yi moom dañ leen di fàtte te soxna yi nag ci lañ bokk am nañ ci solo lool yaakaar naa bu toon ak ñoom baas bi du neex neexee nekk nii wàccaay wi ñoom la liñ mën a dëgër la ba mën a taxaw ba mën a déglu mën a dégg laakaar suñu mbokk soxna yi la kon suñu mbokk soxna yi gàcce ngalaama lu bëree bëri nag dañ leen di fàtte ñoom tamit ñuy fàtte seen bopp waaye daal amuñu moroom daal yaakaar naa turito yi moom xam nañu soxna yi amuñu moroom kon suñu mbokk soxna ñu ngi leen di jaajëfal ci kàddu gi nga xam ne dañ koy yëkkati te soxna moo tax ñu am fi kàddu tey soxna moo ñu mooy fii kàddu tey kon soxna yi jërë ngeen jëf waaye sëti Moxtaar Omaane yéen tamit jigéen jër ngeen jëf waaye daal ko am doom ju góor am nga doom ju jigéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala di leen balu te di leen bal di ñaan suñu borom subhaanahu wa mu boole ñu jéggal ci turu dëkk bi di Lappé 2 ñu gën koo xam ci Lappé dëkk bu mag ci njiitul sëriñ Alhaji Touré bi nga xam ne si ni mooy chef de village bi <coughs> nekkal fi Baye Moustapha Touré di suñu baay di suñu kilifa ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ak mbooleem koo xam ni yaa ngi dëkk ci biir dëkk bi muy lappe góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen bala bu baax a baax a baax di am kontante ak mbégte bu baax ci bis bi ndax wax dëgg yàlla <clears throat> lépp loo xam ni lu war a am ci ab dëkk yéen a ngi bëgg suñu boroom dimbali leen ba ngeen def ko fii ci dëkk bii di lappe nekku leen fi waaye mel na ni fi ngeen nekk ndax seen bët du fi jóg ak seen nopp ak seen tànk ak seen loxo loolu lépp mu ngi fi ñëw duñu fi fekk ay ndaw lañ waaye lépp ñu ngi koy fekk ñu ngi koy gis ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu dimbali ba li ngeen ci bëgg lépp yàlla suñu borom subhaanahu wa taala defal leen ci lu kawe njort sant nañ leen bu baax a baax jigéen ñi ci njiitul soxna jëtu seen ak soxna Kodd Njaay ñu ngi leen di sant bu baax ak euh, soxna Jobe Jóob ñu ngi jotal am nuyoo soxna maam bu sa Ture mi nga xam si ni moo jiite wàllu jigéen ñi ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di ko balu di ko sant bu baax di ko gërëm di wax ni daal moom wax dëgg yàlla seen xol sedd na bu baax a baax li nga xam ne si nag mooy daayira góor ñi ñu ngi euh, nekk lappe te Serigne Moxoje Ndiaye jiite ko ak sëriñ Dame saar ak Serigne Balla Ndiaye ak ñun ñii di jottali kàddu gi ak mbooleem koo xam ni yaa ngi nekk ci dëkk bi doon gone ñu ngi feeñal seen yéene ak seenu cant ci lii nga xam ne si ni moom ngeen ñu defal teñ tële woon ko lool te ngeen jàpp ci ba suñ borom subhaanahu wa taala àggale ko ba mu kawe njort lii Mame Balla juróom benn junni la xeeb nañ ko lool ñoo ko teg ci seeni loxo mu ànd ak suñu yéene ak bépp coono boo xam ne si def nañ ko ci mu boole ko cant yoo xam ne si ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñu ngi leen di baalu rek bu baax a baax di leen xamal ni leen cant gi moom am na fu mu tàmbalee amul fu mu yam lii ñoo leen ko jox ñoo ko barkeeloo ci bis bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci njiitu jigéen ñi muy soxna jëtu seen ak soxna koddu njaay ak soxna jobbe jóob ñoo dajale ñoom seen yéene juróom-ñaari junni yi na boole ko xol bu sedd guy ak maanaam cant goo xëye am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñu ko teg ci loxob soxna maam bu sa Touré mu jottilil leen ko mbooleem njabootu lappe gépp gi nekk Touba taxawe bis bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te xam ne liñ def nii ci dëkk bi ñoom lañ ko defal def goo xam ne si ni amuñu si benn condition dañuy wax ni leen lépp loo xam ne si ni war na ci bis bi dañ koy dajale Touba dajale ko Ndakaaru ànd ko ak seeni coono boole ko ak seeni moyen ak lépp jël ko indi ko jébbal ko waa dëkk bi ba noppi ànd ko ak ñoom taxawu ko kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu dimbali wax dëgg yàlla lépp loo xam ne si ni dafa manqué ci kàddu gi ci ñun ñu ngi koy wax loola rek waaye ñoom moom seen pas-pas ak seeni yéene ak seen cant rëy na lool ak mag ñi Serigne Ndiaye ak Serigne Sène ak Jaxate Aan ak Serigne Dame Ndiaye ñoom ñëpp wax dëgg yàlla sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen rafetlu bu baax a baax a baax taxawaay bi ñu ngi sant itam bu baax ki nga xam ne si nii mooy Serigne ab dati Touré mi jiite sëti maam moxtaar Oumani ci ndigalul Serigne Balla Xujja xalifa maam Mokhtar Oumani yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala yàggal te wéral bi mu defee ab liggéeyam ak taxawaayam ba suñ borom subhanahu wa taala dimbali ko bañ am màkkaanu kër maam Mokhtar Oumani mu taxaw ca taxawaay bu rafet ànd ko sëñ Cheikh Touré social ak sëriñ Xaadim Touré xaadimul umma ak ñi ñu ko war a àndal ñëpp ba tey jii lañ doon teg xeer wi ci bisub euh, bisub Maam Muxtaar Umaani bii kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di xam ne waa dëkk bépp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci xam ni ñoom ngeen ko defal yéen defalu leen ko seen bopp defalu leen ko Maam Muxtaar Umaani ñun ñii dëkk si dëkk bi ñun ngeen ko defal ndax ñun ñooy Maam Muxtaar Umaani ndax ñun la yàlla nattoo ñu nekk fii ci dëkk bi kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu àggaleel ñu yéene yëpp ñu ngi baalu àq ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di jël nuyoo bi di ko teg ci loxob suñu waajur muy Baye Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaara. di nuyu bu baax sëriñ alxaaji Touré mi nga xam ne mooy chef de village bi ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaar xam naa nag tey man maa ngi wax ci kàddu Euh, sëti maxtaaru maan yi nga xam ne euh, ñoo booloo nekk benn nekk fukki penc ak juróom-ñett yoo xam ne penc mu nekk am na ñu fa bàyyi ko ñu tënk booloo ngir askanu wi yëpp nekk benn ci kilifteefu sëriñ Balla xujja mi nga xam ne mooy xalifa maam maxtaaru maan yi ña ngi koy ñaanal suñ borom yokk aw fanam akuk wéram di ñaanal bu baax itam sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne mooy président bi ak sëriñ Ilimane Touré mi nga xam ne mooy jëwriñ yi waaye di ñaanal bu baax sëriñ Massamba Touré mi nga xam ne ñëpp amal nañ ko cant muy coordonné groupe bi ci coordonné bu rafet ñu ngi koy ñaanal bu baax suñ borom indi ko ci jàmm xam naa euh, maa ngi wax nag ci bànqaas bi nga xam ne moom lañ ma dénk ci euh, liggéey bi nga xam ne moom lañu sumb muy liggéey boo xam ne liggéey bu ama am njariñ la di defaru mbokk ak jokk ak wax ko muy social sociale nag yaakaar naa liñ fi waxtaana tey lépp dara génnu ci social kon ñu ngi soññ sunu bopp di soññ ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sëtoo ci mam Muxtaru Maani moo xam nga sëtoo ci ci waajur wu góor wala wu jigéen moo xam nga bokk ci groupe bi moo xam nga bañ cee bokk ña ngi lay soññi nga taxaw ci social bu baax comme ni ko ñëpp xamee ku ne xam na ne góor ña ngi koy laaj 6000 francs ci at mi yëpp jigéen itam ña ngi koy laaj mille ci at mi yëpp am nañu itam ay carte sociale yoo xam ne dañ koy dagg benn yoon ci at mi carte bi ma ngi jar 1000 francs am nañ ay bloc itam yoo xam ne képp ku bëgg a barkeelu ma ngi fi kon ñu ngi soññ sunu bopp di soññ ñëpp di soññ bu baax itam ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal social bi ci wàll soxna yi ku ci mel ne soxna Nday ture moom sëñ ma xuja Faati Bakar ak soxna Bintu Silla ak soxna Màggat Touré ak soxna Ami Misba mu soññ wala ñëpp waaye di soññ itam ñi nga xam ne góor ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal ñoom it social bi ku ci mel na Serigne Mor Touré ñu ngi koy nuyu ndax wax dëgg yàlla ko aman yéene ñëw ci bis ba ñëw ba ci yoonu yàlla dogal mu paan loolu moo waral egsi wut waaye amoon na yéen a ñëw lépp ñu ñëw ci ci bis bi kon ñu ngi leen di soññ yéen ñëpp képp koo xam ne sëtu nga ci Mame Makhtar moo xam nga bokk ci groupe bi moo xam bokkoo ci na xam ne social bii ñuy def xaaruñu ci ku bokk ci groupe ak ku ci bokkut ndax lii liñ ci bëgg rek mooy képp koo xam ne sëtu nga ci Mame Makhtar Oumar yi war a ñëw ci yow dana ñëw ci yow kon nag ñu ngi leen di soññ tey soññ suñu bopp di ñaan bu baax suñ borom mi nga xam ne mooy dimbalati suturaal képp ku ci def saw ñaq yàlla la suñ boroom fay xam naa jataay bi dafa xat waaye wax dëgg yàlla kàddu yi waroon naa gën a yaatu waaye nag ñu xamee ko ne daal ne ñu képp kuy dem na nga yóbbaale xam ne social bi nga xam ne mooy daw ci njabootu Mame Makhtar Romane ñu ciy woo ñëpp bàyyiwuñ ci kenn góor mag ndaw ñëpp ñu ngi leen ci woo xam naa ñu tënk foofu rek ndax comme ñi bëgg a wax bari na te waxtu wi xat na ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñu dellu ci jàmm ñu woon ci jàmm suñ borom delloo ñu ci jàmm ak salaam dañ fekke waat ko déwén te ànd ko fi yokk bu baax a baax a baax a baax ci barkeb sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbooloo mi di leen saare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa dëkk bi bi suñu baay sëriñ Moustapha ture di ko ñaanal bu baax suñu boroom yàggal ko fi ba ca kanam a kanam yàggal taxawaayam ak tamit mbooloo mi dar ci ginnaawam ak seen Pastef ginnaaw bañ ci tegee chef de village su dëkk bi ak kilifa yu dëkk bi ak notable yi yëpp ñi ngi ciy teg ñi nga xam ne ci kilifteefu Baye Tafa ñooy liggéey ci ginnaawam ak tànkam tañ mañ cee jiital wala ñu tudd ci sëñ Balla Touré sëñ Maxuja sëñ Daam ñëpp ñi xam ne ci kilifteefu Baye Tafa la ñuy dox noonu lañ lañ ca mën a tegee mbooloo Maxtaar Umaani mii tamit di ci sëñ Abdou Latif ak sëñ Cheikh Touré ak ñen ñe leen yabal ñëpp te xam ne lépp benn la te benn la masa kon ñi ngi ci seen tur ñoom ñëpp ci la ci la ñuy waxee ndax fi ñuy waxee muy association ànd defar la dafa nekk rek rakku maanaam kuréel yi nga xam ne ñoo ñu jiitu comme ñoom ni nekkee rek ñi leen ci mag ñi jiite woon ñu topp ci rek noonu lan fa yéenee toppaat seen ginnaaw incha allah taxawaay boobu nag ban juddoo ba léegi ci eh, mbaaxu yàlla ak seen expérience ak seen i teete ci lan doxe baas fii ñu waas di ci sant yàlla ndax nañ ko commencé woon ba léegi seetlu na ne chaque année day yokk macha allah ndax ñu ngi commencé woon ba ñu njëkkee commencé ay quatre cent nangam mille moins de cinq cent mille ak suñ ba ban koy engagé xëy na mënuñu ko woon ñëw engagé biis yi subventionné ko wàññi paas yi loolu lañ ci jubloo nag mooy maanaam gën a soññi rek mbooloo mi pour ndaje mi parce que lu mbooloo mi gën a bari rek teg yi gën a bari looy perdre te biise tamit mën nga ko waat faneen ca tàng yooyu nag lan nekk ba léegi yàlla dañuy suturaal ak ci jafe-jafe yi jamono toll yëpp reen tamit amaan nan lu weesu lañ amoon waaw mu am tamit leneen lu ci dooleeku ñu jàppee ko ab soñee bu mag a mag suñ mag yi nga xam ne taxawaay man amoon yëpp ak responsabilité organisation bi yëpp dañ ko wëlbatiku tegaat ko ci suñu loxo association bi nag Mame Balla Touré moo ci ëpp passif te moo ko jiite moom Maguette Dieng ak Fallou Amina man sax daanaka amu ci solo dañ maa wax loo rek waaye ku mel ne Fallou Amina ak Mame Balla Touré ñu ñaanal leen bu baax a baax a baax te xam ne ñu am passif lan ginnaaw ba ban tegoo ci tànki Abdoulaye Touré ñoom sëñ Xaarim mag sëñ Daam ak ñoom ñëpp daana wàcc ñu daal tànk yi nga xam ne fële seen mag yi nekk te ñoo tamit jëlee ko ci seen i baay ñu jëlee ko ci seen di sant yàlla bu baax di rafetlu tamit liñ gis niireen tam masa am muy mbooloo moo xam ne ñoo bokk luñ bëgg bokk luñ bokk bokk lépp war a jëm benn yoon te ne mbooloo mooy doole yeneen wuute yëpp nag mën na xaw a am ak parce que loo gis ci lenn la jógee waaye l'essentiel war nañ mën di jaan lu mel na ndaje mii nii nga xam ne ñoo bokk lépp bu askee ku nekk war naa bàyyi la nga jàpp ñu def l'essentiel ba ndaje mi jàll bu ko defee nag ku ne am nga say asanda bopp waaye daal lépp luñ mën a ànd ñun xale yi ñu ngi koy sàkku li ci suñ kanam ci lépp luñ mën a ànd ñu ànd ci te xam ne ñoo bokk lépp léegi association bi nag bi ñu commencé ba léegi ni ma ko waxee chaque année day yokk ren mag ñi délégué ñu organisation beeg lépp suñ loxo lañ ko teg wàllum nag yeeg ñoo ko jënd bii si moom ñoo ko mas di di engagé te daa mas a yokk ba njëkkee yaakaar naa benn lañ commencé woon ñaar ba tey ñu ci ñett te lim feesuta tax waaye bu feesoon tamit lañ koy yokk bu mbooloo mi yokkoon tey parce que ren cinq bis lañ programme woon far yàlla dogal trois yi sax feesuñu bassan yi ñoo ko engagé matelas yeeg siège yeeg ndox yeeg jus yéeg lépp lu fi nekk ñoom ñoo ko jaayante la cay seen xaalis la nga xam ne du ci xaalisu daayira bi tamit mag ñi seen loxo lañ ko teg daal chargé bu daal ñoo ko def ñoo taxaw lépp kon ñooñu ñu jara ñaanal lan ñu jara ñaanal lan ak seen expérience tamit gunge leen tamit bu baax a baax tax na ñu am passé lan am na ku ci ràññeeku woon nag mas yi am taxawaay ku mas a ñëw lappe mas nga kaa gis ba daaw bii mujj rek moo taxaw woon si laxasaayu am pasif lool ñu koy wax Mourtada Touré kenn du ko fàtte waaye ren nag ñu koy gën a ko moo tax ñu koy rendre hommage nii ci ci seet yuñ sol di rafetlu tamit initiative bi ngeen jël jël mbaar mi tuddee ko ko te peut-être yàlla mën a doxal sax waaye xëy na <laughs> du woon luñ programmé comme mbaar mi nag des na fi boobu ba léegi am na nu mu bi kenn du kenn du ko tudde parce que bu amutoon Pastef bi waaye taxawaayam may na ko ko kon loolu ñu ngi rafetlu bu baax initiative bi ginnaaw nag ba ñu doxal ba méttee moom waaye comme li am am na ba pare moom di ñaan yàlla rek mu gëj fi waaye daa fa mel ne daal association Lappé ngeen ko defal Touré famille ngeen ko defal mag ñi ngeen ko defal ñëpp ngeen ko defal di ñaan yàlla mu gëj fi lool waaye rafetlu nañ ko yi nga xam ne ci leen jëm fas nañ yéene liñ commencé wax ko nii ban commencé ba léegi dañoo fas yéene mu yokk waaye fas ñu yéene mu mu wàññeeku li koy yokk nag Pastef kese la te xam ne li bàyyi taalaa am nii ne peut ba muy liggéey sax loolu taxu ko tax ko a jóg waaye loolu mooy liggéey ngir yàlla maanaam bu lay fay da lay bett waaw parce que taxawaay yi ci am ñëpp ba mu kiiyee ba léegi rek wane na jàmbaar la woon lii ñëw gën koo dëggal kon li ñuy soññee mooy ñi nga xam dañoo bokk ci association ànd defar la paix ci Touré famille ñu yokk seen passif ñi nga xam ne lañ cee bokk tamit te duñ teg ñu xam ne fii li fiy nekk yëpp ay waxi kese andiwu ko fi ñu gën a góorgóorlu ñi nga xam tamit bokkagun nekk ay jeunes nañ xam ne relève bi jeunes yi ñoo ko yor nañ adhéré mag ñi mën a adhéré à travers daayira beeg mag ñi nañ jaar ci mag ñi ñi mën a adhéré à travers jeunes yi nañ jaar ci jeunes yi mais objectif bi yëpp benn la parce que Touré famille ba mu ñëw ñëwutoon pour andi mbooloo pour def la neen dafa ñëwoon pour andi mbooloo pour dooleel mbir mi te loolu yaakaar naa la ëpp solo mbooloo fu mën a màbboo rek daa war a nekk benn occasion boo xam ne retrouvaille lay nekk pour dooleel mbir mi kon daal loolu lañu ci doon tënk di jégaluwaat ñëpp di soññuwaat ñëpp tamit ñu gën a adhéré Touré famille Mambala mi moo koy am Fallou na bépp jeune bu bokk ci famille bi te bëgg a xamanteeg famille yi parce que du daayira bi kese li am solo mooy ña fa xamante ci Touré famille yi retrouventu kii ay doomam Modou Xayaar ak ñeneen yu bari ci laa leen xamee. sa fa a takkee kenn xamul lu mu toll kon loolu rek jaroon na ko même bu dee dee takk sax bokkal ngir xam mbokk gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu ci toru ajaratu mambu sama ndumbe mi nga xam ne mooy ànd ak rakam yu baax yi jiite liggéey bi nee na mi ngi nuyu kilif waaw nee na mi ngi nuyu kilifaam yi nga xam ne ñoo fi toog ñëpp muy Baye Moustapha Baye Bàcc ak ñëpp ñi fi nekk waaw mi ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di sant rakam yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi muy soxna maam Diarra Touré di jëwriñ ci moom ak soxna Ndeye ture Mbour ak ak ak ak ak uh, Ndeye social ak di nuyu waa dëkk bi soxna Jëtu Seen soxna Koddu Koddu Njaay ñoom ñoom ñëpp ak waa dëkk bi ñi nekk seen ginnaaw ñëpp ku lim da ngay juum te dafa guddi ba nopp nee na ak soxna ndey Touré ma xujja soxna Bindu si la ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaw soxna Fatimor ñoom ñëpp mi ngi leen sant ci taxawaay bi nee na daal. Euh, jiital ngeen ko ci fakkastu leen ko liggéey bépp aw na yoon te grâce à li ngeen ànd ak moom yéen ñëpp ànd ak moom liggéey bi moo moo moo waral lool. nee na mi ngi sant càmmiñam yi nga xam tamit ñoo nekk ci ànd ak moom ci waañ weeg yëpp waaw amul di di sant di ak doom yi nga xam ne ak sët yeeg yëpp ñu ngi leen sant waaw. wax ji daal xam naa ne li lim guddee tax waaye ni mu ko bëggoon a jotale ëpp ëpp na ni. waaw soxna jëtu seen yow tamit maam bu sa nee na nga santal ko waa dëkk bi ak jigéen ñi nga àndal ñëpp teraanga ji mat na sëkk nee na seen taxawaay rek doyoon na sëkk sëkk doyoon na sëkk seen ak seenu ñaq aw ñaq daanaka moo gën sax moo gën sax xaalis te ñaq ngeen ba ba yéen ñëpp lépp aw yoon waaw ñi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp Baye Moustapha Touré tamit nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla liggéey bii nga xam ne moom lañ doon teg xeer wi nee na na daal di buñ weesoo yii rek dina ko soññee bu mu laal suuf bu mu taxaw bu mu laal suuf ni ko sëñ Muntaxa waxee ca université ba ndam lu ci sëñ Moustapha sëñ Muntaxa am ca université ba na ko am ci kër Moxtaar Amaane gi ànd koog jëwrinam yi sëñ Latif ak waa groupe bu Moxtaar Amaane bi yëpp bañ na ko ba seen kayit yi doon lijjanti yëpp lijjantiku na daanaka booy xool bis bi daanaka tey lépp rek liñ ci doon yéene dafa dafa am dafa tawféex kon nag ñi ngi ñaan yàlla ñàkk ko fekke sëñ Latif yooyu ñi ngi lay sant ñaan yàlla may la ndam ayaak ñi nga àndal ñëpp jërë ngeen jëf ñi ngi sant tey gërëm waaw maam Bousso daal nee na mënta ma dal ñi ngi sant waa kër sëñ Seex Lappe yi tamit ak ñëpp ak ñi jógee Mewndu nee na nag waaye bi waa Mewndu yi mi ngi leen sant bu baax a baax mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sant di jiital ci nuyoo bi Baye Moustapha mi nga xam ne moom la suñ borom dogal mu yore kàddu mu yore dëkk bi di kilifa dëkk bi ñi ngi koy ñaanal sun borom guddal aw fanam te wéral ko ba li nga xam ne yéene na ko ci dëkk bi lépp suñ borom defal ko tawféexe mu man ko ak yéen ñi nga xam ne yéene ko yéene yéene nekk ci kanamam mu di leen digal ngeen di def gannaaw bu ñu wax nuyoo ba noppi dafa am délégation boo xam ne dafay ñëwoon xam naa waxuñu ko woon muy sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ sawa Fàllilu dafay yebal soxna Waalo Njaay waaw mu ñëw teewal ko fii soxna Waalo nag ak bokk ñor ko lool mu di ko dox di ko waxee wax na ni nga xam ne noonu la demee ci dëkk bi loolu moo ko yëkkati kon gannaaw bu gannaaw loolu ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu mbooleem ñi nga xam ne tamit mooy suñ bokki dëkkandoo yi nga xam ne ñu ngi ci bitim dëkk bi ñëpp di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam ne di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla bañ sosee ndaje mi ba léegi fa ngeen teg seen tànk teggiwu leen ko bi bu set yéen a ngi def loo xam ne day gën a jëmal dëkk bi di ko gën a jëme kanam kon loolu gis nañ ko bu baax nun waa dëkk bi ñoo ngi leen ci sant di leen ci di leen gërëm bu baax a baax di ñaanal ki nga xam ne tamit yàlla dogal na mm, daana teew ci jotaay bi ñu gis jëfam bu baax a baax mooy Mourtala Touré moom yi waaye nag ñu delloo lépp ci suñ borom xam ne suñu borom moo nu xaroo loolu kenn ku nekk ndax boo xoolee ana yónente yi ana saaba yi ñëpp dem nañ kon ku fi nekkit te li ñuy wax fan wu gudd fan wu gudd mooy du du ci ay at ci jëf la nekk ndax kenn ku nekk boo sañan sa jëf mooy sut saw fan ndax mboolem gaa yu baax yi ñu fii tudd anañu kenn gisatu leen awut seen menn maam moo xam ne ma teg na ci ñoom seen waaye ba léegi ni ñu ngi kon ñooñu ñu ngi dund kon mel na ni jëmm jii nga xam ne moo fi bàyyi ko wax dëgg fa tabaarakallaaw ndax kero bi ñu koy denc rek sëñ Mourtala am na seede yu mu seede ci moom te loolu nun ñu sañan buñ fi jógee am lu mel noonu te loolu lu ñuy jëf lay doon doonul wax rek kon ñi ngi sant mbooleem yéen ñii nga xam ne tamit wax dëgg yàlla yéen a ŋànk ndaje mi di ko doxal ñi ngi leen di ñaanal sun borom gën a guddal seenu fan wéral leen àggale seen yéene ci bokk yi ak ci dëkk bi wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax dëkk bi tamit ñi ngi leen sant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ba ngeen fi dalee ñëw ba léegi gis ngeen seenu taxawaay lépp saa bu ngeen fi ñëwee da mbooleem li ngeen xam ne dangeen ko fee bëgg dañ ciy ànd ak yéen ba ni ngeen ko bëggee ngeen defee ko noonu kon wax di yàlla ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm la ca toll la ca la ca dolli ko nag mooy dëkk bi moom kenn ku ne xam ne wax dëgg yàlla gis na ni muy doxee ndax mboolem turé turé euh, dëkki turé yi nga xam ne mën naa ne ci askan wi lañ bokk ñu ci ëpp teew nañ fi bu dee turé mbond bu dee feneen bu dee ñëpp ñëpp bokk nañ fi teew ndax te dara wurlu ko luy di te lii nag yéen yéen ko sos yéen a waral yéen tax mu agsi wax dëgg yàlla yéen yéen a ko sos di ci def seen alal guddeeg bëccëg yéen a ngi ci ba yàlla dogal lu ab groupe soqi koo ca ba yu ba muy dox ba mu yaatu lool kon lépp lu ci xew mën naa ne yéen yéen yéen ñi yéen a kon daal noonu dañuy ñaan bu baax a baax suñ borom wéral leen kattanal leen àggale seen yéene ba li ngeen yéene ci dëkk bii lépp ngeen man ko noonu xam nañ si yéene bu seen yéene bu baax nuy dañuy fas yéene laxasaay rek incha allah jàppale leen nañ ko def ci dëkk bi rek loolu dañ ciy ànd ak ndax luy defar dëkk bi rek ki ngeen bëgg te ñu lu tax dëkk bi jag dong leen bëgg kon nag dañ ci ànd ak yéen fas ko yéene waaw kon nag ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew lépp wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf ci dara ji Serigne Touba Mbacke ak waa këram ñëpp góor ñeeg jigéen ñeeg taalibe alxuraan xasaayid